asalaamaaleykum wa rahmatullah les amis de téléspectateurs yu Thiès Média ñu ngi leen nuyu di leen ziarat di leen jox seen waay di nuyu particulièrement monde lamb yëpp kulluhum rek bu ñu limee dun juum dañ dul matal di nuyu Modou Fall cadreur bu mag bi di nuyu aussi quartier bi nga xamante ne nii fi laa teew tey muy Cité Ñax seet un grand champion muy Clédor ndax bi mu wàllisee ci làmb yàggul diir bu gàtt la mais daf fi rañe def ay combats yu nga xamante ne nii am na ci ay victoire yu éclatante six combats six victoire ndaanaan boo daan bokkul ak sa morom te nga nekk xale daanaka bokk ci ñi mujjee luqi ko ci làmbi Cees yombul noonu lañ koy nuyoo ziar ko nuyu kull ku nga xamante ne nii rek yaa ngi ànd ak Thiès Média di ñu suivre ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp noonu laay joxe alaaji ki nga xamante ni moom mooy Clédor kàddu gi mu nuyoo ñu doog a ñëw ak moom ci wàccaay waaw onsi bilaay mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant ñuy ñaari waajur di nuyu waa Cité Ñax yëpp di nuyu staff Kélé Dóor di la nuyu yow Pambeng di nuyu Père Modou Fall le grand cadreur di nuyu sama gaay yëpp di nuyu waa Cité Ñax di nuyu sama mécanicien yëpp mécanicien moto yi ak mécanicien oto yi ñoom Aliou Mbada ak sama animateur bi toog Kara di Kara nga xam ne lépp lu ñuy def ci wàllum xumb-xumbal ci wàllum kele door moom mooy jël ay matériel am indi ko te du ñu laaj ñaar dërëm kooku dañ koy sant bu baax a baax di nuyu gars yi fi teew yëpp nag sama estaf maa leen nuyu bu baax a baax a baax. Mhm. nuyu naa. ki nga xamante ni moom mooy la PDG bu Diender production muy Abdoulaye Diakhaté nuyu la coordonnateur Pape Dieng ak staff Diender production bi yëpp nga am bis le 25 novembre ci sa diggante ak 10 000 problème muy ndaanaan bu nga xam ne ni ma ko waxee moom it lëmbe na Thiès lan moo tax nga choisir 10 000. waaw sant yàlla rek dañ ci santaat yàlla di profité occasion bi di nuyu suñu président fan club Abdou Latif Diallo ñu ngi bu baax a baax dafa génn ñu koy nuyu bu baax a baax di ko sant di ko gërëm di nuyu fan club Clédor yëpp bu baax a baax waaw 10 000. li tax jël ko dafa bokk suñu yoonu làmb rek waaw yàlla mooy dogal ne doomu aadama bi fii lay jaar ak fii amaana ma woon na ñëw ba nan naa bëre ba bàyyi bëre wala moom ba bëre ba bàyyi bëre te du ñu tase ci làmb mais yàlla moo ko dogal xama kon nag dañ koy sant bu baax a baax di ko ñaan bu bis ba la 25 incha allah yàlla mi dara tëwul te moo am ndam ñu ngi ko koy dagaan ci barke Cheikh Ibrahima may ñu ndam ci kaw 10 000 problème incha allah. bokk ci yoonu làmb ci naka lan moo leen boole yéen. Ah, dafa dañoo dañoo xàmmee fekk ko ci làmb fekk muy def lu leer di bëri di daan waaw ñun tamit ñu marqué suñu empreinte ci làmb ba làmb boole ñu rek ñu tasee war a jëflante incha allah le cinq te keroog la ngoon la le cinq nañ jëflante lu neex incha allah comme ni ma ko waxee woon rek dépassé man damaa soxla 10 000 bu pare 10 000 bu complet bu bëggee ñu bëree ba naaw ci kaw air bi. waa damaa bëgg ko waaw damaa bëgg nag boobaa mu gën a pare mu gën a gën a gën a pare comme que nee daanaan la dafa mën a bëre dama ko ko waxoon dama koy waxaat 10 000 bi nga xam ne arbitre daan suufle mu dagg jéng yi ferme gardam dox ci kaw gaa yi man loolu laay xaar bu boobaa loolu laa bëgg boobaa ñu tase ñu jëflante damaa bëgg ñu bëre ba arène nationale yëpp jug taxaw. bu yaa ngi woon naar ci guuxum ah waaw damay ragal nga ñëw gars yi naan 10 000 bii kon ni mu ni mu daan ñëwee ñëwewul noonu. ñu bañ ko xàmmee loolu la. xam nga ni Thiès nee nañ Clédor mi ngi doog a am loolu rek. waaw léegi nag dama loolu nag damaa bëgg ñu def ci code bañ bëree ba pare buñ bëree ba pare dinañ ne Clédor taseegul ak moromam démb rek damaa nekk entraînement di ko wax sama gars yi ñu am man leen man ñi ma war a bëreel ci làmb man ñi ma làmb booleel dëgg-dëgg taseeguma ak ñoom te Pambé ngi heure bu bis bu combat yooyu taxawee naan la ñii laa war a bëreel ci làmb mais sama place ci làmb yow xam nga ni mu demee sax sama place ci làmb du fii nii yàlla xam na ko billaay wallaay maa mën maa ëpp doole. maa leen gën a nekk xale. sa digganteeg nag dëgg-dëgg bu coow li jeexee mun nañ ci xaar xeex am déet. non di 000 moom kenn du ko wax ne xeexal ak man du xeex ak man day bu xeexee ma dóor ko mu daanu di 000 dama ragal ndax mooy combat bi gën a gaaw ci combat yi xam nga 13 secondes amoon na fi ah, non du xeex ak man. gëm-gëm boobu nga am. 10 000 du xeex ak man. man dama gëm ni 10 000 day xeex ak yow. du la du la song te xeexul ak yow. <laughs> non non day sànni rek day sànni rek day sànni daw day sànni rek daw yoorati day yoorati. waaw day am day samp jaaga de kale. wóor na yàlla bu xeex ak man ma door ko mu wadd billaahi wallaahi bu xeexee ma door ko mu daanu. souvent souvent Thiès damay dégg yenn kii Kale Dóor amagul yenn ndaanaan yi qualité bëreem xamaguñ ko 10 000 nekk champion bu xajam. day baatare xeex ak bëre kaar macha allah lan lañ mën a xaar ci weccetu bëree ci kele doon ci digganteem ak non man nag weccetu non non man nag weccet boobu laa bëgg ñi naan kele door bëreegul ak moromam xaj na ñooñu dañ leen di déranger te làmb dafa am ñoo xam ne da nga leen ko déranger moo tax ñuy waxee ci yenn ton yi waaw am ñoo xam ne boo leen déranger dañuy wax ci yenn ton yi pour jéem laa sous-estimer wala ñu am noonu la def affaire yooyu noonu te xam nga làmb moom gars yi bu gars yi bëgguñu wujj quoi bëgguñu kuy déranger te kele door day déranger fi ma toll nii damay déranger lu bëree bëree bëri. dans la norme kees waroo am koo fi déranger parce que bu yàlla nee waaw dans deux ans drapeau bi Modou Anta yor da nga kaa war a téye. waaw sant yàlla rek dañuy ñaan yàlla jot nañu ci loolu noonu di ko nuyu au passage di ko ñaanal ndam lu gaaw te sedd di ko ñaanal booy jaxaaw mais sant yàlla rek ñoo ngi ñëw daal nan nu xaar dama ne leen njaago bu góor bi mi ngi ñëw ñu bëre lu rëy dañuy bëre ba naaw ci kaw air bi wóor na rasulaay dañuy bëre lu rëy rëy rëy combat bi damaa bëgg no man li may bëre bëree gu ma ko wanee gu ko ci làmb quoi moo tax nag ma bëgg ñu génne ci weccitu bëre bi ñu xam ne Clédor xam nga dañ naan do xam boo amee doole am na benn ma ko làmb bu ko waxoon ne boo amee doole sa bëre du feeñ xam nga li ma la wax waaw boo amee doole sa bëre du gaaw a feeñ mais bii moom dañuy jël affaire doole teg ko fële ma indi technique bi li ma jàngee àll ba laa bëgg indi tey tey xoolal bërekat bi ñëwul de mbër mi mooy ñëw barki rasulaay mbër mi mooy ñëw. fan nga toll ci préparation. waaw ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax nag fi ñu toll nii moom wax dëgg yàlla moom loolu gars yi naan le moral bon tout est bon tout est ok fi ñu toll nii waaw gars yaa ngi nii man su ma gëstoo gis nii rek damay kontaan barki rasulaay su ma gëstoo gis Bamba Kara gis mu Ndiaye mu laal coppite bi yaa ma gën a xam xam ga ñàngal kanam gi noonu wax gëm xool ma li muy def laay wax li muy wax laay def barki rasulaay waaw gars yi lan lay fii lan lay tekki yow parce que souvent bu ma lay jël si rek fii laa lay jël. waaw sa diggante ñii lan la ko. waaw ñii famille lañu. wallaay lazim ñii ay famille lañu man ak ñoom ñii ay doomu ndey lañu bu làmb paasee lépp paase bu dul làmb lu dara bu heure boobu ñëwee fii nga ñu fekk nii ñu toog nii teg suñu ataaya teg suñu glace di naan di waxtaan di mbalagante bu dimanche jotee fii la ñuy indi bal bi petit camp affaire yooyu noonu te damaa bëgg bu ñu ne suba la làmb ji bu ñu suba la combat bi nga ñëw indi caméra yi ma fii nga gis ni muy petit camp fii ni muy fubalee loolu moom fan nga a nawloo 10 minutes wala kese. non loolu sax wala wala wala. heure bu ñu nee suba la combat dañuy fubal ma dugal ay biir yu rëy. petit camp bi ci bagage yi la bokk. petit bi dañuy fo dañuy fubal ñun làmb jàppuñu ko kii yan wuñu affaire yi. billaay yan ko affaire yi comme dem rek contact lañ ko jàppee affaire yooyu noonu dañuy dem contact yi rek ñëw comme niñ koy compétiré ci mbappa di affaire yooyu. am leneen lu ci nekk Clédor da ngay waree Thiès mais tollu nga ni di toll kaar macha allah di mobiliser li yi di mobiliser ñu gis sa naataango yi ñoom Alburi ñoom ñaabu ndaw xale yi ñu ngi fële ndakaaru kaar macha allah le 19 mars sa diggante ak ceeg bu 50 defe naa ni baat ak tontu la waa ndakaaru ñu ngi lay xelmati remarqué guñ la ci seen taarixu làmb pour cent mais le 19 bi saf nga sàpp ci signature de contrat yi ñu ngi lay bàyyi xel tey boo génnoon ci komba bi lan mooy nekk sa xel ci ndakaaru ak est-ce que Dakar yaa ngi fay bàyyi xel bu baax a ne amateur yeeg. fans club yi fa ne ñi ngi lay bàyyi xel ba naan ma kii du mbëru combat préliminaire mbërum grand combat la est-ce que Clédor liy nelaw ci bopp moom dëgg-dëgg yëg na ko. wala yaa ngi bëgg a dugg ci feebar bi nag ñooñu ñooy samay morom ñooñu ñooy samay catégorie comprendre nga ñooñu ñooy morom ñooñu ñooy samay catégorie tey xam nga ne tey man ak Alboury loolu combat bu neex a neex lay doon ak ñaaw ñaabu ndaw tey combat tey day arbitre day soufflé amateur am na combat yoo xam ne combat amateur lay doon ñëpp di ci xaar neex ñu xam ne ñii ëppante wuñu dara ëppante wuñu sutante wuñu loowante wuñu laardante wuñu xam nga ma la loolu mooy làmb tey mais tey man fi may bëri nii du sama place amaana nag bañ duggee ci làmb yàggul mais ñu ngi sant yàlla bu baax. 10 000 mënoo ko bàyyi ci on bi ku def plus de douze komba am ci benn défaite bu nga xam ci départu làmbam la ndaanaan kullu fadalin la mi ngi mujjee daan noiro bu grand mbooloo te noiro ndaanaan la tey ku la ko joxoon yaa ngi moom combat la moo tax adversaire nga am ci biir adversaire yi naam nag yaafu soo ba dajeeg moom da nga liggéey. parce que defe naa ni moom dese na laa remarqué ci làmbu Thiès ndax ci ginnaawam nga luqi ko Thiès moo tax combat bi doy waar àggaleel ci li nga nekkoon. waaw loolu moo tax combat bi doy waar moo tax dañ fekk ci yoon bi wax nga ko sa fekk yoon bi rek kon dañ koy jël yóbbaale ko ba fi ñu bëgg dem ba fi ñu àgg ñu teg ko fa dem xooli leneen koo fekk ci yoon bi moom dañ koy yóbbaale rek dañ ko fekk muy dox ñu ñuy dawal suñu oto si ci moom dañ koy jël yóbbaale ko teg fu ñu teg ay moromam dem xooli lu nekk suñu kanam. mos nga seetaan combat 10 non man nag aw ma habitude seetaan ay combat yi. di waxuma bi contrat bi ko seetaan parce que bëri na mu bëri lu rëy tur bi laay fàtte man du ma jàpp yooyu man mooy loolu noonu. waaye seetaan naa ko daal benn waaye bu mu bu mu bu mu bu mu ko wër jël bu rafet daal macha allah yana ko ba kaw dóor suuf mu doon jël bu rafet. xaw ma lan xam ne kii ndaana la tam mas nañoo tasee kër Sidi Jaxate mas nañoo tasee kër Sidi Jaxate ñu koy montal combat foofu noonu affaire yooyu boobu ñun naa yàgg boobu sa xel a ngi woon ci ni kii maag moom làmb man nag xalaatu ma woon ne làmb nañu boole man damay xalaat ñi nga xam ne ñoo nekk ca kaw a kaw man toujours man ñoom lay xalaat kii dañoo damaa jóge daara ji ñëw ma fekk fi ay mbër yu ñuy coow ma ne ko comme ñii la ñuy coow fii affaire yooyu mu ne waaw ma ne ko ñii incha allah may ma tuuti damay agsi seen kaw ma ñëw bëri fi sama premier komba daan daan na ñii bëri grand combat bi nii nii mënuñu ma ëpp ñu ma doole loolu bu ñu xoolaatee vidéo article nañ ko gis man tamal bët teguma ko ci fii nii damay xool damay viser de loin comprendre nga damay xool sori mais xalaatu moon tax lamb na ma bëlëg 10 000 problème affaire yooyu noonu man ñi ci kaw lay xool wallaay. fan lan lañ mën a xaar ci Clédor le 25 ci côté mobilisation parce que gis nañ ni mu ko daan defee. noonu nu ko raw lay demee parce que gars yi pare nañu fi mu toll nii pare nañu wax dëgg yàlla xanaa di woowaat autorité rek ñu gën ñoo jàppale yokku ñu doole ku ci mel ne Clédor Fall sama turandoo mu ñëw ni mu daan ñëwee. gi dafa nekk nekku fi sax dafa xawoon a tawat fan yi génnoon mais ñu ngi koy ñaanal mu wér di ko ñaanal jàmm xam nga Pape Latir Ndiaye moom tamit suñu lépp la daf ñuy jàppale moom tamit mu ñëw comme ni mu daan ñëwee comprendre nga waaw gars yi yëpp waa Cité Ñax waa dëkkandoo bii nii dëkkandoo ñu ngi leen di woo di leen woowaat ñu ñëw ñoom ñëpp génn en masse ñu dem arène national jàpp 10 000 problème arbitre soufflé ma dagg jéngi dox ci kawam bu xeexee ma duma ko mu daanu bu bëree ma daan ko jël gaaw acca mbokk yi champion baa ngi noonu Kélé Dóor mi ngi noonu ndaanaan la ni ma ko waxee woon moom laay faral di wax l'enfant série de Cité Niakh parce que diggante bi fàttalikuwuma fi mbër mu nga xamante ne nii mel na ni moom francement moo tax bi mu ñëwee dëkkuñu ci secteur bi mais dañ ciy feer parce que Thiès it dëkku làmb la parce que suñu papa booy Niang yàlla na ko yàlla yërëm fii la luqi ko suñu papa Landing Diame suñu papa As Mbaye ñeneen ak ñeneen bëri nañ dem si yàlla Omar Diko yàlla na ko yàlla yërëm moo defar Modou Anta bii tey ambulance ci loxoom la génne car masha Allah Thiès dëkku la moo tax quartier bu nga xam ne mbër lu koo na fa rek dañuy kontaan dañuy am njàmbaaru di la feeñal parce que côté bu ne war na am mbër bu yàggee mun nañ dem ba téye roi des arènes nañu gën a gëm suñ bopp gën a am yar gën a am respect ci nit ñi bañ a gis succès sport loolu moo koy accompagner boo gisee succès rek da ngay reculer parce que sa doole ci sa ginnaaw la ne kele doon ñan ngay woo pour ñu jàpp ci combat bi ak wàccaay parce que ñu ngi ci cëppaandaw émission bi waaw dañuy santaat yàlla bu baax a baax di woo waa Thiès waa taaxi kaw waa Kawsara ñu ngi leen di woo bu baax a baax baax di woo waa Dakar di woo waa Touba bu baax a baax ku ci mel ne sëñ Abo mbaake ñu ngi koy woo Mbacke bala mu dolli ñaan yu baax a baax sëñ Moustapha Mbacke di woo sëñ Fallou Mbacke xam ne mooy suñu sëriñ suñu lépp di ko woo mu dolli ñaan yu baax a baax Mbacke balaay sa yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko fi di woo ñi ñu daan woo rek waaw di woo waa keppaar gi yëpp ñu ngi leen woo bu baax a baax a baax waa mën na faal waa keppaar ga hmm. ngay waaj combat bu mel tere càq dóor la épaulé voyage amul lenn sooxeel ci préparation. loolu sooxewul dara ci préparation bi ñooñu dañ leen di nuyu au di leen ñaanal fañ nekk yàlla defal leen fa lépp luñ fay wut rek incha allah mais ñoom ñun ay xale lañ nekk ci école bi di jàng te lépp li nekkoon ci ñoom def na ko ci def nañ ko ci ñun xam nga li ma la wax. ay champion nga fa ay champion nga fa am nay xale yu fa màgg ñu day ne ñun wala sax ñu ñu ëpp. formé nañ ñeneen ñoo xam ne tey li nekkoon ci ñoom yëpp def nañ ko ci ñoom tey boo ñëwoon écrit ba di nga xam ne ma lay wax bu baax a baax am nañ ñeneen ak ñeneen ñu fa nekk ñoo xam ne macha allah dañuy ñoom jibi weñ gi bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci écrit ba mbëri écrit yëpp di fa di leen ñaanal nag ña am combat yàlla may leen ndam bu baax a a baax di profité di woo suñu grand as bal ñu ngi ko yow bu baax a baax a baax as waaw ñu ngi ko yow di woo Assane Seye borom Italie Assane Seye ñu ngi ko yow bu baaxa a baax a baax a baax ci komba bi président buntu dépôt wee Sunkara président bu nu depp ñu ngi koy woo bu baax a baax baax a baax ci combat bi di wax mu ñëw jàpp si open press bi le 22 la incha allah le 22 waaw le 22 fii ci festival incha allah ngeen ñëw comme ni mu daan demee rek à partir de 17h incha allah na ñëpp ñëw Vieux Sonkara ñoom ñëpp waaw ah bii macha allah bii na ñëpp ñëw incha allah suñu papa Ablaye Dieye moom tamit ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax mu ñëw jàpp si suñu papa Ablaye Dieye moom gis nañ social bi muy def ak lépp affaire yi muy def noonu. ñu ngi koy woo bu baax a baax asbal asbal ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax ci combat bi Pape Latir Ndiaye suñu papa duñu la fàtte ñëwal nga def ni ñu daan def waa Mbambara waa Salba ñoom ñëpp ñu ngi leen woo bu baax a a baax waa Mbambara waa Salba maître Ousmane Diagne ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax ci combat bi moom tamit di nuyu gaayam nekkal ci mairie bi yëpp di ko ñaanal jàmm waaw képp koo xam ne daal tudduñu la rek ku lim doo jum da nga dul matal waaw di woo waa dëkkandoo surtout waa dëkkandoo nag ñu ngi leen woo baax a baax ASC bi na ñëpp génn ñoom Assane Seye gars yëpp nañu génn waaw waa Foye waa Foye maa leen woo bu baax a baax a baax waaw ñoom Baye Serigne ñoom Wissi ñoom ñëpp ñu ngi leen woo ñoom Bamba ñoom ñëpp nañ ñëw mobiliser ñu dem Dakar jël liñ moom parce que dañ fa am wàll loolu noonu ñun ñoo ko fa am dañ kaa war a jëli waaw di woo waa Guinée Bissau nag leen woo bu baax a baax suñu papa Ousmane Diouf ma nga foofu Guinée Bissau lépp lu ca war ma ngi koy def waaw di woo waa Casamance di woo waa Tamba bu baax a baax a baax waa Tamba waaw Tamba ñu ngi leen di woo bu baax a baax a baax monsieur le maire Modou Ndaw ñu ngi koy woo monsieur le maire bu Alta Fass ñu ngi baax a baax a baax ci combat bi mu ñëw jàpp di woo kan ci Abdou Mbaw waaw suñu papa moom tamit demoon nañ fa tamit ñu ngi koy woo bu baax baax mu ñëw jàpp si combat bi bu baax a baax waaw di santaat sama gaa yi yëpp parce que ñi amuñ seen fay di sant ñoom Aliou Mbadda gaa yi yëpp Aliou Mbadda ba combat bi taxee ba léegi moo ñu jox motoom ñuy yi def la ñu neex fu ñu bëgg a dem dem fa leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di wax ne yàlla na jàmm yàgg ba bis ba incha allah le 25 di ci woo ñëpp nag képp koo xam ne rek koñ bee la ñor Cité Niaxa la ñor ak li ko wër ñu ngi lay woo ci combat waa Cité Pilo waa ñu ngi leen woo waa Cité a baax ñu ngi leen woo ñëw jàpp si combat bi bu baax a baax a baax équipe yi ñu wër yëpp ASC yëpp waaw hmm? waaw defar nañ monument bi ba noppi affaire yooyu noonu di waaj après combat bi waaw ñëw feete affaire yi yaa ma gën a xam incha allah di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp incha allah. <laughs> jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur yu Thiès Média nuyuwaat nañ leen ziaraat leen champion baa ngi noonu Clédor a ngi noonu dégg ngeen ko waxtaan na waaj na li mu waaj naal yeeg yëpp waxtaane nañu ko ñu leen di jox rendez beneen yoon ci beneen daanaan <laughs> ñu nekk yéen ci Thiès Média bu yéen joxul waxu sel du jeex jaa ngeen jëf.